camarade Guy et notre camarade Assane dinaa la ay san waxal tooñkat yi ñu bàyyi tooñ

li fi nekkoon dugg fi bañ doon xeexe ñu ngi fay xeexe ña doon gañ yi gañ yi mhm. mais na ngeen xam ne du ngeen nekk mhm. Sénégal ñëpp ñu ngi seen ginnaaw ñenn ñi dañ ko ñu wax ñenn seen biir kër lañ toog di foofu mais xol yëpp yéen a mhm. li ngeen nekk neexul mais njàmbaar neexul moom jàpp yàlla ko dëkk gaat na toolu tey ku bànneex ñoom doo def jàpp mais da ngeen xam ne àdduna yëpp seen ginnaaw ñu gën a góorgóorlu Yalır yalnız Fırat'ın sözü tutacak. Amin. Hayır. Wow. Ya ben de anlatıyorum. Bye bye. Vale. Vale. Allora. nuyu naa leen yéen ñëpp man la Guy Marius saña gis ngeen ko je viens de sortir euh, maa ngi soog a nii ci kaso bu Sébikotane maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp yéen ñëpp yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm yéen waa Sénégal yéen nekk Afrique fu nekk yéen ñi nekk fu nekk ci àddina ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ndaxte tey jii nii bu fekkee mën naa génn ginnaaw yàlla yéen na donc maa ngi leen di gërëm et ah xeex bi nag dañ koy wéyal Euh, la lutte continue et Inch'Allah, nous vaincrons. Merci.